déposé nañu lettre yi may bëgg lim le président de l'Assemblée nationale même su fekkee daf ko bañ le président la présidente du conseil économique social et environnemental le médiateur de la république les op la l'opposition comme PDS PASTEF réew mi ñooñu noonu ñëpp saisir nañ leen même le président de la république ak le ministre Cheikh Omar Anne depuis le début yéen journalistes yi aujourd'hui vous êtes en mesure nekk fu ñu toog pour wax jafe-jafe étudiants yi parce que tellement on a assez fait de conférences de presse de points de presse et de marches de manifestation maintenant li fi jot a jib ñun ñëpp yëg nañ ko xam nañ ko et le problème en est que soo leen defoon tey dugg ci biir ñi am problème mooy étudiants yi ak bacheliers non orientés yi doo leen fi gis doomu ministre doo fi gis doomu Cheikh Omar Anne doo leen fi gis doomu directeur de cabinet ce qui veut dire que ñu fi nekk ñi ñii ñëpp ñun ni ñuy woowee doomu baadoolo yi et ils sont prêts à tout pour sacrifier notre avenir loolu front bi du ci du d' accord tey du ci d' ëllëg pour wax ni ni ñi ngi caaxaanee avenir u étudiants yi mooy que ni ISEP bu Diamniadio bii soo demee amul yónnee nañ leen ay mail kenn ñoom du mën a reprendre le premier septembre ndax lan fosse bi nga xamante ne moom la ñu waroon def biir ISEP maanaam fosse soo duggee ci toilette bi mu mën a dem ci fosse bi amu fa ñu ne leen yéen mënoo leen ñëw toog toute une journée te doo leen utiliser douze vu que force amu fa yéen doo leen mën a reprendre le premier loolu tappale la ñàkk wekk étudiant mënul weesu loolu orienté ay étudiants lu toll ci quatre cent étudiants yu am nag seen bac brève de d'une manière brève brièvement ñu am ko seen bac parce que ñoom ku ñuy orienté foofu doo coomo génnoo deuxième tour te soo génnee premier tour tu es sorti avec mention ñu bu leen foofu ba pare alors que ISEP bu jam ñaajo dara pareewu fa sànq wax na ko ci installation ñii nekk ci privé bi ñoom ñi ngi naan réouverture le premier septembre mais ñi premier septembre taxul ñu jàngi parce que bor bu ñu yoral privé bi la faye duñ leen ko ba léegi seen i ñu ngi siy topp ba léegi donc loolu tamit c'est à signaler étudiant bachelier non orienté le président de la république avait pris une décision conseil des ministres bii passé euh, wax Cheikh Omar Anne à ce que mu orienté tous les bacheliers tey mi ngi commencé di def xaaj seen ci biir bachelier yi di am ñu muy tànn am ñu muy léese loolu ñun duñ ko nam nit mënul jàng ba am bagam avec tout les sacrifices yu mu euh, tous les sacrifices yu mu jot a def nga ñëw naan kaan euh, ñii ni ñuy orienté ñii kenn du leen orienté en plus au delà de ça mi ngi leen bëgg a retard maanaam di am ay lenteur yu muy def à ce que ñoom ñu xaaraale ñi nga xamante ne ñoo war a def bac 2019 pour ñu bokk benn promotion mais kii ku mu yàpp ndax moom bëgg na doomam mu toog une année yoo xamante ne deful dara. tey ñi nga xamante ne daaw lañ am bac ñu bëgg a bokk promotion ñu war a am bac ren mais nous sommes dans quel pays dans un pays où les fils des politiciens les fils des dirigeants sont plus respectés que les fils des doomu baadoola ce que nous ne pouvons pas accepter maintenant discours yi pare nañ ci tey je pense que su ma juumul mooy doon conférence de presse bu mujj bi bii gannaaw suba dinañ wàcc ci mbedd mi ñu tënoo nag l'opinion nationale, internationale. Nous tenons les parents d'élèves à témoin. Nous tenons nos autres camarades étudiants. li nekk ci yeneen université yi muy université euh, Assane Seck bu Ziguinchor muy Cheikh Anta Diop muy Gaston Berger muy Thiès muy feneen ak feneen nous tenons le syndicat des enseignants de l'enseignement supérieur à témoin ne leen nag ñun de yuuxu nañu depuis des mois ñi ngi yuuxu ñi ngi jooy autorités yi dégg nañu xam nañu suñuy problème mais nanguwuñ ñoo déglu waaye nag moment bu ñuy wax interdire nañu rassemblement ndax mbas bee ngi yokk interdire nañ waaye lii lu ko gën a doon virus ndax est virus corona dafa gën a dangereux virus bii nga xamante ne y a l'avenir de plus de soixante mille étudiants qui est en jeu c'est la question que je vous pose maintenant su fekkee dañoo bëgg su sama camarade wax na ko sànq su fekkee dañoo bëgg beneen Fallou Sène beneen Balla Gaye beneen Bassirou Faye parce que peut-être ñoom seen i doom kenn du leen rey ci yii donc nañ ñu ko wax nañ ñu ko wax te ñun pare nañu pour loolu vendredi bii ñëw nous donnons rendez-vous à tous les étudiants de ces différentes organisations non seulement mais aussi à tous les étudiants des différentes universités yu bëgg a porter ñoom ñoom tamit bëgg a solidaire à notre combat citoyen et noble ne vendredi bii ñëw nañ ñu ñëpp ñu daje fi nga xamante ne mooy siège Sonatel bi plus précisément siège UVS Université virtuelle du Sénégal pour porter le combat de toutes ces organisations xam dugal nañu lettre d'information bi depuis le lundi passé tey suñu yenn camarades yi moo tax gisoo leen leen ci ñu ngi gendarmerie bu euh, Foire di def li ñuy wax enquête de routine donc enquête ak ñàkk enquête yëgal nañu autorité yi lenn mooy tere sitting boobu am muy que ñu wooñu fii ak suba nay seen jafe-jafe kaay lañ am nañ ci solution loolu su amul di ngeen ñu gis ci mbedd mi su fekkee nag pare nañ pour mate ñi pour rayaat yeneen étudiants pour jàpp ñu yóbbu ci kaso ñu xam ne ñun lañ dem ci kaso non seulement pour suñu avenir waaye aussi pour l' avenir des des générations qui vont venir parce que bachelier non orienté suñ ko bàyyee kon nañ arrêté bac bi te xam ne ci biir bac bagu ren bi dina am ay bachelier yu ñu dul orienté kon nañ arrêté euh, arrêté bac bi parce que ci biir bac bi euh, dina am ay bachelier yu ñuy orienté ISEP bu jëm ñaaju alors que c' est une université boo xamante ne travaux yi pareegul des travaux inachevés nañu arrêté bac bi parce que suñu moytu dinañu yóbbuwaat études bacheliers yi dans le privé te duñu fay privé yi loolu moo nekkoon li fi gën a fës ñu bëggoon ko yëgal askanu Sénégal waaye aussi également au delà de vendredi dinañ dem buntu ministère la semaine prochaine dinañ fa dem toog fa toogaanu ñaxtu te duñu fa jóge tant que Cheikh Omar Anne mii nga xamante ne moom lañ dénk enseignement supérieur génnul wax ci suñu avenir su nekkoon doomam la réglé na ko bu yàgg

parce que on ne peut pas causer avec un président un ministre boo xamante ne il n'a pas sens de l'écoute le front national pour le projet des étudiants du Sénégal composé euh, par les bas les bacheliers non orientés qui sont au nombre de plus de bacheliers composé par les étudiants de l'ISEP de Diamniadio composé par les plus de 40 000 étudiants euh, du privé composé par mille par plus de étudiants de l'UVS déclarés non éligibles ñooñu kenn mënu leen jox seen machine composée par les étudiants victimes d'une escroquerie de Afrique Canada nous tous nous réclamons le départ de euh, Cheikh Omar Anne mi nga xamante ne depuis le début de l'année depuis plus de neuf mois ñu ngi koy bind ñu ngi yuuxu ñu ngi wax in a pas sens de euh, sens de l'écoute et il préfère rester dans son mutisme donc loolu moom suñu combat la te dinañ ko porter di jox rendez-vous askanu Sénégal dinañ wax ne nag bi ñu kenn jàmbaaraamu tuuma ñu ñu waroon saisir yëpp saisir nañ leen ñu ñu waroon waxal yëpp wax waxal nañ leen donc suñu génnee ci mbedd mi lépp lu ci am comme conséquence Macky Sall ak ministre am nañu endossé li nga xamante ne mooy responsabilité yi